jëfin bi moom mënuma ci wax lu dul xanaa mu nekk lu réy loo xam ne lii doon nañ ko xaar ci ñu bari ci Thiès doon ko xaar ci état d'abord lañ ñu jox demewul noonu et on waaye doon ko xaar aussi ci kilifa yi ci biir dëkk bi ñi ngi def waaye moom li mu def ni tey ñëw na serait-ce minutes tax mën naa ne xamul problème Ablaye Yakhine Diouf noonu parce que mosuñu ko ko soumettre mais mu def un geste boo xam ne bii ñun duñ ko fàtte mooy bi gën a métti ci ñun muy problème ndox bi nga xam ne man yuuxu naa ko fu ne mu ñëw tey promettre ñu ko régleel ñu problème facture d'eau bi. honorable euh, député euh, Abdou Mbow. amuñu moyen bi xale yi lu ñu naan sax dañ koy wute ji seen kër teen la ñu am te teen bi.

Hein? conditions yi bu fekkee ne dajalewuñu ko rek nañu tëj école boobu te man dina également cent cinquante matchs en renfort ak deux thermoflash yi nga xam ne jafe na yenn écoles yi sax amuñu thermoflash mu ñëw renforcer ñu de deux thermoflash am nañu cent candidats cent candidats donc ñu ngi leen def ci six salles de classe pour un peu respecter la distanciation suba ñu ngi xaar euh, téeméeri xare ak euh, fukk euh, ak ak juróom benn bi maanaam euh, ñu ngi koy faram-fàccee ci juróom juróomi classe. Mhm. classe bu nekk dina am ñaar fukki élèves ñaar fukki ndongo ak euh, ñett. Mhm. waaw si noonu dañu jël ñaari maître CM2 yu yu yore woon CM2 ak ñaari maître CM1 ñoom ñooy constituer les quatre classes. L'autre maître qui va aller compléter, c'est M. Elaziguen. moom c'est un maître potentiel de CM2 c'est un excellent maître de CM2 moom jël nañ ko ba wax nañ ko ko. nangu na jël juróom juróomeeli classe bi nga xam ne effectif bi dina mat maintenant yeneen maîtres yi peut-être mën naa see wax ci yeneen maîtres yi nga xam ne dañuy flotté du ñu flotté déedéet parce que thermoflash bi chaque fois ku dugg ci parcours bi war nañ ko contrôler dina am ñu féete foofu dina am ñu nu faram-fàccee ci classe yi pour ñu jàppale maître bi disposition euh, techniquement ni ni ñu faram-fàccee élèves yi pour ñu togué ki nga xani mo jitu day fété càmmoñ ki si topp ci moom euh, féete euh, jor ku nekk sa table ku nekk ku nekk yaay tok sa ak sa table bon buñu ñu génnee aussi dinañ am matwa yu nga xamni ni ñu am ñeneen mètres yu ñu bay ci cour bi ñuy veiller ci distanciation bi pour respect pour santé bi yoy yep et mètres yep da leen utiliser pour le bien-être des élèves wajuru aussi limu leen di dénk modi ñu ñame xamni ñun ñii ñëw jiitu leen ci école bi di leen jàngal ay waajur lañu ba pare ay waajur lañu seen papa lañu seen yaay lañu seen nijaay lañu ah ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. tey fii ci Thiès pour accompagner li nga xam ne moom mooy effort yi nga xam ne président de la république ak gouvernement am déjà commencé nañ ko ci ouverture bi nga xam ne ay difficile moo ci mais état bi li muy def mooy def tout pour que propagation bi mun a wàññeeku loolu moo tax tey ñoon ñu ñëw pour accompagner li nga xamanteni ni moom mooy autorité académique li ñu def déjà parce que ci école yi CM yi ak lycée yi li nga xam ne moom la ñu war a def muy eh, distribuer ay masques distribuer ay thermoflash état bi am na lu mu ci def maintenant nag ñun lépp mënuñu ko xaar ci état bi en tant que parlementaire en tant que fils de cette localité ñu ne dinañ ñëw aussi joxe li nga xamante ne moom mooy ay masques benn loo 3000 masques joxe li nga xamante ni moom mooy ay thermoflash pour ci école yi parce que am nañ loolu cinquante thermoflash ak ci ak li nga xamante nii moom mooy ay vivres yoo xam ne dina ànd ak moom pour cent famille yoo xam ne am na cinq tonnes de riz ak euh, sucre andak ak ak li nga xamanteni mom moy sabu pour jàppale ko li nga xamanteni aussi mom moy famille donc li moy li nga xam ñun mom moy suñu wareef te lolu jàpp naa ne dañ koy def pour accompagner président de la république parce que président de la république li nga xam mom la wara def ak gouvernement ñing ci taxaw boobu batay tey fokk nit ñi aussi di wax ne 3 euh, millions élèves ñoo nekk Sénégal mais ouverture bi 500000 le concerné donc lolu limi muy moy amna ay mesures yo xamanteni état bi jël nako pour que sécuriser li nga xam ne mooy élèves yi sécuriser enseignants yi te loolu jàpp naa ne dañ ciy gën a dalal Sénégal dinañu continuer di leen jàppale.